Euh, ñëw euh, ne Ousmane Sonko euh, condamnation bi mu am ci affaire Adji Sarr de c'est c'est une condamnation définitive donc suñu sukkandikoo ci li mu li ñu li li nga xamante ni wax na ko mooy que ni Ousmane Sonko moom dafay out ci élection yi nga xamante ni ci la ñu ci la ñu jëm muy présidentielle. waaw loolu la wax maanaam du bokk ci élection yi euh, contumace yi moo fa jaar moo tax li nga xamante ne sax mooy liste électorale yi génnee nañ ko ci dootul mën a fale kenn dootu ko falati loolu la wax mm-hmm. mais xam nga euh, moom mi doon wax c'est le ministre de la justice mm-hmm. du c'est pas le porte-parole de de l'APR bu doon wax wala Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. ministre de la justice bu Sénégal moo demoon doon def entretien di wax ak ay journalistes kon kooku tey ji bu waxee man mi nga xamante ne faruma fenn wala keneen ki far fii keneen ki far fële dafa war a dégg ay kàddoom ne ak ki kat wax dëgg yàlla mi ngi wax waaye li muy wax kat amul par parloo mhm. mais malheureusement da ngay constater carrément benn logique boo xamante ni dafa am benn yoon bu ñu jël rek ubbi ko waa ji du bokk du bokk du bokk ak lu mënti am du bokk loolu bu ñu ci duggee rek nag nekkatuñ ci droit ñi ngi ci leneen malheureusement foofu lañu toll fi ñu toll nii ak ñoom boo xoolee mbir mi ni mu demee kàdd yu mu yëkkati mu ne bañ ko jàppee eh, ca liñ ko jàppee ak dossier bale bokkul mais Ismaïla Madior moo toogoon RTS mu ne Ousmane Sonko possibilité ñoo offre ci moom. buñ ko jàppee contumace bi day dañ. moom bu demee jébbal boppam contumace bi day dem mais da ngay dégg mu ne la délai bi ñu ko joxoon pour mu jébbal boppam jébbalu boppam man ban délai laa koy laaj. est que dañ ko atte nekk am nga 15 jours non man xaw ma délai peut-être mu am délai ce que dañ ko àtte nekk am nga 15 jours wala 3 mois wala kii pour ñoo àtte si lépp luñ ci xam mooy prescription bu délit 5 ans la. Mhm. délit prescription am 5 ans la maanaam su ma sàccoon tey téléphone saa bi. Mhm. feex juróomi at bu ma porté plainte fekk juróomi at bu ñu ma gisee dañ may jàpp. Mhm. mais bu juróomi at yi waasee délit bi day am prescription. mais léegi bu fekkee crime la. dix ans la dix ans la bu dee délit cinq ans la corruption de la jeunesse bi cinq ans la mais dama xamul boo atteindre ni ki ndax dafa am àpp boo ko may naka ñëwul bala ñëwul mais boo ko déggee mu naan délai bi ñu ko joxoon ñëwul délai bi ñu ko joxoon ñëwul mais moom moo toog ne contumace bi nag bu ñu ko jàppee waxul bu ñu ko jàppee ci beneen dossier de mais dana bu ko jàppee RTS la ko waxee. Mhm. bu ñëwee contumace bi dem bu ko jàppee contumace bi dem. Ah, après tey ñu waxoon waxoon RTS bi muy expliquer lan Ousmane Sonko possibilité yi taxaw ci kanamam loolu la expliqué woon mais tey ji ngeen jàpp ko nga ne ko li ñu la jàppee du loolu mais on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas on ne distingue loolu mënul nekk mënoo distinguer loo xamante ne loi bi xaajaalew ko tey ji boo demee yaa ngi koy wax sànq ne dane bu ñu ko jàppee ma déglu tamit man sànq si rek maa ngi ko doon dégluwaat euh, professeur Ndiak Fall pénaliste mhm. émission bi mu def Sud FM mu ne euh, la contumace revêt d'un caractère précaire mhm. caractère précaire mooy lu mooy lu oyof lu sukkandikuwul ci dara mhm. mu ne contumace caractère précaire la am mu ne dès l'instant que ñu jàpp ko rek day am lu ñu tudd purge de la contumace wala bu jébbalofam day am purge de la contumace kii ne kon li procureur wax mu ne ñoom ñaar laa leen di wax c'est un professeur qui parle kii jàngal ñëpp jàngal ñeneen ak ñeneen mag mag bu ñu toll na xanaa du toog di wax lu neex Macky Sall wala keneen mooy leen man li droit wax laa ah, leen la texte yi benn la mooy leen texte yi mënul nekk ñu ni ko mooy leen droit wax laa ndox buñ ko jàppee bañ ko jàppee la contumace ba jeex mmh. après nag yéenee xool do dossier naka ngeen koy àttee bii ngeen di wala mais contumace bu mënatoo leen ko wër mais boo duggee si loolu dugg si yoon boo xam ne mënoo ko lee fi ñu toll nii kon Ousmane mu nga ca ba tey léegi Ousmane Sonko bi bi biñ ne dafa sàcc téléphone moom lañ jàpp ni mais da nga dugg ci problème après. Mhm. léegi boo tegi da nga distinguer ñaari Ousmane Sonko yi. c'est pour vous dire que ne rek parfois di nga bëgg mbir di ko jaar fenn mii tëj yow mais boo jàkkaarloo xam dafa compliqué dangay ngay nangoon dafa compliqué wala mhm. mënul nekk. Mhm. mais su fekkente da ngay insister finalement da nga dem ba ñëpp dañuy xam ne kii li muy def nii doonatul droit man yàgg naa la wax mbiru Ousmane Sonko ba bu dee droit lañ ci wax ba bu dee lañ ci wax rek droit jegewul sax mbir mi. parce que bëri na yu si am yoo xamante ne kenn mënu ko tuddee droit te loolu ñoom ñi nga xamante ne ci droit la ñuy liggéey ak si lañuy sukkandiku xam nañ ko mhm. moo tax malheureusement boo gisee tey ji euh, koo xamante ne tey ji moom mi ko def moom moo ne woon euh, candidature président Macky Sall léegi bataille politique la nu deux millions de signatures buñ koy tegee stade dinañ ko exiger mu dem mais kooku bàyyi na fële constitution bi. yaa léegi bataille politique la bu ñu amee 2 millions de signature président Macky Sall dana bokk ci. élection yi mais kooku mooy wëlatu taxaw nañu tey jii lii la code bi wax lee la kële wax lee la kële wax koo xamante xam na ne bokk président euh, Macky Sall si constitution la lalu mu bàyyi fa constitution bi. di leen laaj ay signature ndax kooku tey jii dina am benn crédibilité boo xamante ne bu ko waxee ni ñi nañ ko gëm par rapport à un dossier moom rawatina un ennemi politique boo xamante lépp lu ñuy mëbët si moom suba ba ngoon mooy pour abattre ko man je pense que euh, encore une fois ay sortem mun na koy wàññi parce que amul loo xamante ne mën na ko wax loo xamante ne ñi nekk ci euh, ay sachant ci biir milieu bi waxuñu ko ba noppi. d'accord mais euh, li nga xamante ni moom mooy problème bi ñuy yàgg na depuis ñu arrêté Ousmane Sonko ba léegi c'est débat bu bu nga xamante ni nit ñi ñu ngi ci ku nekk yaa ngi ciy joxe xalaat mm-hmm. Euh, solution bi Moustapha tey euh, euh, lan moo mën a àtte tamit lii ah, mu leer ñëpp xam tey lan ma lan la ci yoon wax. mais jëfee li yoon wax. non tey mais xam nga le ministre de la justice mi ngi mi ngi génn di wax procureur bi génn na ci wax de l' autre am na ñoo xam ne si ni tamit ñi ngi génn ñoo xam ne si ni c' est des hommes de de droit ñi ngi ñi ngi génn di wax muy ñi ànd ak Ousmane Sonko mais finalement doo xam. exactement lan la yoon lan la ci yoon wax. mais xam nga xam nga ku nekk yaa ngi yaa ngi wax te li nga wax yaa ngi koy layal yaa ngi foo yaa ngi am tey naka a génne ci ci situation bi mu leer une bonne fois. mais parce que dañu am benn face à face boo xam ne ñenn seen bët. mooy du bokk bokk. bras de fer la waaw ak leneen am lépp mooy du bokk te du bokk. Mhm. donc loolu bu ñu gisee boo boo demee ba bëgg contumace nga ne doo ko daaneel ak yi parce que mais buñ ko laajee ne ko procès Adji Sarr mu ne loolu kenn ko jugé pare nañ ci mais loolu problème la. Mhm. mais koo xam ne da ko toppoon pour viol ak menace de mort. nga dem ba ne léegi viol ak menace de mort amul dossier boobu ay des vingtaine de personnes tëdd ci ay bakkan tëdd ci. Mhm. léegi nag loolu duñ ko leeral léegi xale ba jigéen ba waxoon kii ne dama violé dafa maa menace de mort léegi moom day toog jàpp ñàmburum na le kenn du ko àtte kenn du ko leeral dara du ko ci fekk te moom moo sosoon wax ji nga xamante ne moo ci li ñu nekk tey ji bu doon daf ko toppee ne ko corruption de la jeunesse mais loolu nit ñi dañ koy fàtte daf koo jiiñ ne ko da nga ma doon sàkku ci lu ma neexul ba pare di ma menacé di la sàkk ci loolu ne ñu dem juge bi ne ko sàkkuwu la ci la menacé wu la waaye nee naa lii am na waaye léegi loolu mu wax noonu tey ci yow nga jóge na léegi dossier bu dañ koy jël ba mu rafet ñu daal di koy pousse nii daal kenn dootul àtte ci dossier bi pare nañ ci pare nañ ci parce que ñu ñu soxla woon am dootul bokkati moo tax rapidement sa nañ ko ci liste yi def nañ ñi def nañ léegi ay Adji Sarr dans tout ça ay wax ji mu te amul dans tout ça donc parfois pour man ne serait-ce que pour le respect am na ku ma ko foogoon la dernière fois mu ne ma loolu ne serait-ce que pour la pour le respect autant pour moi des sénégalais waruñoo toog fi dossier bi jeex na jeex na bouclé nañ ko jeex ak li ci am yëpp ak li ci xew yëpp mais je pense que loolu moom dafay yomb trop. te sukkandiku ci benn contumace ni àtte nañ la par contumace après dootuñu si waxati je pense que c'est trop facile. sa sa euh, euh, en tout cas mais tey naka la ñuy def wala kat moo war a tey euh, tranché yi fii leer ñu xam ni kat mbir yi lii la. ki war a tranché kay tranché na. kan la. code pénal nee na maajoor li ngay wax. non code pénal bi xam nga tamit. ah non dama ne déedéet déedéet déedéet xam nga code pénal bi ku nekk ak ni ko. interprété déedéet du ku nekk. non Ismaïla Madior Fall wax xam nga Ismaïla Madior Fall wax na. Mahfouz kilifa ñoom aussi wax nañu. xoolal Mahfouz kilifa message war nañu am koo seen yëfi ñàkk fayda yi buñ la ci yóbbaale. yow da ngaa yor sikkim yow xam nga nekkoo mag mu wat sa sikkim di booy booy. comme yow. déedéet non man watuma sikki dëgg man nii laa amee sama sikki ma ngi nii dama bokk li may wax xam nga ko. mooy ñuy toog waaw dama ko amul man. ma sa ma toog yow nag baal baal di gaarwaale yi ngay def. waay gaarwaale taxaw naan en principe ak yu deme noonu kay xam nga ko xam nga gis nga dëgg dañ koy wax. Hmm. ñàkkal ñu fayda weesuwut as ndaw jóge fële ne kii da nga maa yàkkataan da nga maa xoqatal ki nga xam ne moo doon lu ñutukat bi capitaine Touré xool ko ndax fa yow a yegg du man yegg fa xool ko nekk xam ne kii day fen mu ne kii ne ko mu naan ko mbaa duma ci am problème ak sama patron ak yi ci am yëpp dafa am loo benn journaliste boo xam ne bi mbir mi amee Babacar Touré dafa am lu mu wax ne lii ma gis amul luñ ci mën a toppe kii mais par contre yéen waa Pastef wala ñi bu ngeen moytuwul mën nañ leen cee